comme ni ko président waxee woon dafa bëgg Sénégal gépp ñëpp génn set setal dëkk bi tey le président Abdoulaye Dièye par doole ji nga xam ne da ko am pour rassembler mu rassembler fii nga xam ne mooy DVF di koñam bépp couche boo xam ne nekk nga fi di association di daayra di président ASC ñu ngi nii toog di nga xam ñi nga xam ne tey ay jour yoo xam ne dañ fi nekkoon depuis génération 2004 créé seen association ñoom ñoo fi ñëw tey ñoom ñëpp jàpp ci liggéey bi nga xam ne ki nga xam ne mooy président Abdoulaye daf ko woote biir koñam ndax lan li nga xam ne président da ko santaane mooy lan gën leen ngeen set setal seen koñ bi defal ko pas de xumbaay pas de mumbaay nekk na toosa koñ defal ko moom heureusement ba waa koñam nandee lool ci moom ndax lim fi jariñ teel a génn ñoom ñëpp jàppale ko si li nga xam ne mooy liggéey bi nga koy ci biir koñ bi muy suñu mag Abdoulaye Dièye di suñu président muy woote set setal bi defoon nañ ko le 4 mu fees del tey tamit mu woote waat ñii ñëpp génn ñun nag moom lañu lii la ñuy xaar si moom ndax koo xam ne joxaguñ la dëkk bi ngay seet seetal dëkk bi kon bu ñu la joxee dëkk bi mbuus sax dootoo ko romb si dëkk bi. moo tax ñun moo tax tey ñun tam ñu ñëw en masse ñëw ak doole pour jàppale suñu mag suñu président yàlla defal ko jàmm ñu jox ko maire de Thiès affaire bi jeex. di euh, rafetlu initiative bi ni euh, te lii suñ ko defee c'est parce que dañoo gis président Macky Sall ba mu génnee euh, demul Guédiawaye demul Rufisque demul fenn dafa dugal direct dem Mermoz. c'est parce que foofu ñun message bobu nonu daf ñoo daf ñoo am def dañoo wala dañoo dañoo ne suñu lañ ko suñu gox lañ ko parce que ay ndaw lañu nous suñu koñ rek Nous ñor suñu ay gox Nous japp képp ku ne képp gox nga nettoyé ko Sénégal Nous euh, président Ablaye di def rek parce que kenn ci

li dafa doon loo xamante ni nii waruñu woon xaar sax kenn di ñu ci woo ndax malgré ñu ngi ci woon mais moom bu ñëwee dooleel ñu dañuy gën a am doole pour gën war koo gën a mën a def tey nag macha allah jeunesse bi yëpp génn nañ jàppale ko pour fas yéene defar suñu gox ndax bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk rawatina nag ak cet ndax setit ci jaamu yàlla la bokk te yooyu soo ko deful sa jaamu yàlla mënut ta sell ndax sell moo jiitu d'abord avant tout kon lii daal vraiment ñun dañ koy rafetlu te fas yéene wuñ koo yemale fii incha rabbi heure buñ ko heure bu ko bëggé ak heure bu ko soxla rek ñun paré nañ pour génn jappalé ko ba Sénégal mëna sét may sante ki nga xamante tay mo moo initié lii muy le président de la République le président Macky Sall parce que li day wone rek sa vision ak engagement bi nga xamante ni ko pour jëmal le Sénégal kanam donc tay kenn mënul woté euh, sénégalais bu développer té amuñu cet parce que cet de di loo xamante ni dafa am importance ci deuk mais tay je pense que ni ñepp remarquer ngeen ni da appel bi nga xamanteni son excellent le président Macky Sall def nako nit ñi dégg nako ndax tay ku ku ku ku gis fii euh, cette forte mobilisation bi nga xamanteni tay ñepp ñew nañ taxaw ngir euh, ba donc je pense que les actes acte de acte citoyen la donc tey ñu ñëpp a ko bokk amul kii fële la far amul kële far donc tey gis wër ñëpp si parti politique la ñu bokk ñu bokk si opposition ñi association ñi réseau de femmes ñi ay et et président daayira tey mu ñoom ñëpp ñëw nañ répondre si li nga xamante ne tey man moom laa leen woo parce que bu moo ko wootee woote wu ma ko ngir sama bopp mais dama ko ko woote ngir engagement nga xamante ne dama am Thiès parce que tey Thiès ñun ñoo war a am taxawaay donc tey képp koo xamante ne rek da nga nga woote ni patriote nga patriote nga xam mooy nga xam ni dama bokk si dëkk bi mais aussi dama war a jëriñ dëkk bi donc may woote rek que la population ñuy wone da xar-xaram bu bees nit ki da nga war a xool lan la nga war a defal sa dëkk mais bu rek xool sama dëkk lu mu war a defal te je pense que set ñu dañ ko war a commencer ci suñu bopp d'abord donc tey je pense que ne lii moo waral véritablement ñu woo toute la population te ñu ngi leen di remercier mais aussi di leen ñaax surtout di di ñaax ndaw ñi

débloqué naa ay moyens pour nous mener de évacuer parce que bu ñu balee rek jël à si aj ko ci kaw de suuf bi dafay ñëwaat donc t'as ñun si lu ñu mën suñu pour dañuy débloqué ay moyens que pour l'intérêt de la population moo tax ñuy la population lit du coup def bés bu nekk ñuy ñëw di bale euh, ndax euh, Thiès mën am euh, xar-xaru kanam bu set ak bu